إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مرتضى إني ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs yi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci suba ba léegi ci fi nga xam ne moo di Malpensa a ci bis bu am solo bi nga xam ne moo di journée xaside yi ni leen ko doon waxee ci suba ba léegi ren nag nekkoon li nga xam ne moo di fukkeelu édition bi ak ñett suñu borom def defal ñu taw tawfeex ñu toog ak jëwrin yi nga xam ne ñoo jógee ci Dendorop ak li ko wër eh, ci suñu loxo ndeyjoor ñu fi am ki nga xam ne moo di Serigne Baara Mbegere eh, di jëwrin ci délégation bi nga xam ne ñoo jógee Touba Norvège euh, Serigne Saliou Seck ànd ak délégation bi nga xam ne ñoo jógee Touba Belgique Serigne Mbacke Ndiaye moom it ànd ak délégation bi nga xam ne ñoo jógee Touba Espagne ci suñu wàllu càmmooñ ñu ngi ak ki nga xam ne moo di Serigne Abdoulaye Lay bokk ci délégation bi nga xam ne moo jógee Touba Allemagne sëriñ Abdoulaat Gueye bu Touba Angleterre sëriñ Khadim Silla bu Touba France. kon lii bokk na ci eh, lenn ci délégation yi nga xam ne teew nañu fi ñu ngi doon xaarandi tamit ki nga xam ne moo di sëriñ Issa bi jógee fi nga xam ne moo di Amérique am na itam délégation boo xam ne nii ñu ngi jógee fi nga xam ne moo di Canada ak eh, sëriñ Souleymane Fall ànd ak sëriñ Mamadou Diokhane ñoom tamit jógee ba Sénégal teewal fi ñi nga xam ne ñoo di eh, Hizbut Tarqiyyah bu Daarul Khoudoss ñu ngi leen sant bu baax kon di leen gërëm kon ni ñu def mooy ubbi rek jotaay bi kenn ku ci ne indi li nga xam ne moo di eh, eh, gis-gisam ci ci ci bis bi gis-gisam ci liggéey bi ak itam li nga xam ne moom la ñu sumb ngir eh, gën a dëggal li nga xam ne moom la sëriñ bi doon ñaan ci yaara bee jalil muridina maa fii isni kalan asini wasam laj maha waaye li ci ëpp solo mooy bayit bi nga xam ne moom la ci toftale muy malik jamiahum nufaasuhum bila sayin yadru wal masayax bala kon mu mel ne jotaay bi bokk na ci lii firndeel almasa yàq balaa gi muy dox bi mu doon dox suñu borom nangul na ko ko ndax boole na ko tey jii dajale nañ fi mbooleem eh, ñi nga xam ne ñu ngi ci dénd Europe bi ni ñu ko waxee muy Italie France Allemagne Angleterre ba Amérique sax ba ñi nga xam ne ñoo jógee Sénégal ba Canada kon ni ñu def mooy eh, commencé ci suñu loxo ndeyjoor jébbal kàddu gi ki nga xam ne moo di Serigne eh, Bara Mbéguéré moom it mu daal di nuyoo bu ñu paree Serigne Saliou Seck nuyoo moom mi jógee Belgique suñu paree Serigne Serigne Mbacké Ndiaye daal di nuyoo kon Serigne Bara rahmatullah mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp ñu fi teew eh, xam naa ni du nu guddal ndax eh, xaw eh, ñu toog fi xaw na kii tuute waaye di sant ñëpp rek di xam ni ñu ngi fi teewal waa Touba Norvège ànd ak délégation boo xam ni ñu ñoo jógee ba Norvège waaye di sant Sëriñ Touba bu wér rek di wane ni daje bii nu daje tey nii lii am na lu muy firnde te lii timit mooy lan doon def sa Touba nga xam ni bisu màggal gi su waree ñëw bis bu njëkk bi ñu jugee diaspora bi yëpp tase waxtaan mais lii nag moo koy firndeel na daje bi mooy wane ni waa diaspora bi ñëpp dañuy dikkaat toogaat fii nu waxtaan suñu biir saafante suñu biir xamante suñu biir euh, doxalante comme ni waa itali di jógee di ñëw ba Norvège waa Norvège di jóg di ñëw di ko dem Paris di ko dem Espagne ak yeneen dëkk yi lii gën tax loo xam ni gën a jur leneen loo xam ni mu nekk liggéey boo xam ni vraiment day nekk liggéey bu am solo liggéey boo xam ni dayo bi kenn du xam fu mu toll kon bis yu mel nii lu nu war a gën a bari la daje bi war na gën a bari kon ñu ngi ñaan sunu borom bi nga xam ni si barke xasaayid di mu gën noo boole gën a ànd lëkkaloo bi gën a dem gën a taxaw ba nii ko Italie taxawee la nii ba woo ñëpp beneen dëkk tamit mën ko taxawal ba ñëpp di fa fekki bu ko defee mu doon a ndamu Serigne Touba defe naa ni fii daal mooy yoon bi mooy. kon nu ñaan sunu borom bi si barke xasaay dii rek eh, xam naa ni bëgguma kàddu gi gudd lool na mi xaw na sakkan waaye rek di am kontante lool di leen jox eh, cant gu waa Norvège eh, am na ñu ma àndal muy sëñ Aliou Fall ak son bu ndooy ak si wàllu soxna yi tim soxna ameek soxna Nafi ak soxna Jooj ak soxna Yaasin mbooloo mi sant nañ bu wér daal sant nañ bu wér sëñ Saam ñu ngi gërëm ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp vraiment bëgguñu gën a guddeel sëñ Kamal vraiment kontaan nañu kon mbokk yi ñoo ngi yemale foofu kàddu yi di sant bu wér salaamaaleykum wa rahmatulah taala jërëjëf Serigne Bara ci leeral yu am solo yooyu ci teewaay bu am solo bi nga xam ne waa Norvège teew nañu ko fi ren ci yàgg ko teew itam yàgg ànd ak ñun ak liggéey bi kon Serigne Saliou dañ lay jébal kàddu gi rek nga daal di nuyoo ci turu waa Touba Belgique ñoom it ñu ràññee leen bu baax ci liggéey bi ràññee leen bu baax itam ci xaside yi ndax gis nañ ne heure bu ñu fi ñëw tamit kuréel lañ fi indaale boo xam ne ni njàng mu am solo ñu gis ne kon am bu am solo boo xam ne ni gënd leen a diggante Italie ak fi nga xam ne moo di Belgique te lépp ñu ngi ko ma rahiim salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu santaat sëriñ bu baax ci teew gi ñu teewaat ren fekkee bis bi di sant bu baax tamit suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ bokkool jataay wi te di yëgle ni ñoo fi ñëw ci waa Belgique teewal fi waa Belgique ndax euh, ñu ci bëri amoon nañ yéene teew ci bis bi waaye ay ngànt daa tax ba man rek ci teew ci waa Belgique waaye mel na ni ñoom ñëpp teew na ndax seen yéene yëpp moo doon teew ci bis bi. waaye euh, di di di yëgle di yëgle tamit euh, cantu cantu waa Belgique bu baax ci ci lii nga xam ni euh, waa Italie ñu ngi koy def waaye di ko defal yoonu murit yëpp ngir ñu xam ni bis bu mel nii daanaka benn la ci ci àdduna benn la ci àdduna ngir nin dajalee ñi nga xam ni ñoo fi ne. ku ne jóge ci gox yu wutee teew fi ngir xasida yi ak sëriñ bi kase te saa saa dellu doo doyal ci bis bi ngir mbégteeg ak uh, doyo gi dañuy santaat baax waa itali ak uh, mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo jàpp ci liggéey bi ba ba ba mu toll fii mu toll tey xanaa bañ a guddal rek di jox di leen joxaat kàddu gi te di leen yëgal ni sant nañ baax mbégte gi daa bëre ba nga xam ni daanaka xamu xamuñu lu ñuy wax jaajëf sëñ sëñ Kamal ñu ngi sant bu baax jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Saliou bu xam ne moo jógee fi nga xam ne moo di Touba Belgique moom itam ni mu ko waxee at yëpp ñu ràññee baax seen taxawaay ndax it ni ñu ko waxee heure suñu ñëw. kuréel bi la indaale daaw sax ñu gis sa taxawaay bu am solo boo xam ne ak yokkute la mooy ay kuréel yu tout tànk yi lañ jël indi leen ñu yëkkati fi xasida yu am solo loolu tamit Italie gi ñu ñëw sax teewul tout temps tout temps yi ñu fi nekk yi ñu fi fekk soññaat nañ leen bu baax a baax euh, kon ni ñuy def mooy jébal kàddu gi Serigne Mbacke Ndiaye bu Touba Espagne bokk itam ci ñi nga xam ne ñoo fi teewal mbooleem daayira yi fa nekk waaye teewal fi itam mbooleem kuréel yi ndax euh, Espagne itam dañuy liggéey liggéey bu am solo ci wàllu woowu ndax gis nañ ne heure suñu fi ñëw kuréel national bu Espagne la ñuy ñëw teewal ko fi kenn ku ne xam Espagne maanaam dëkk yi soriyante gi ni mu soree waaye teew ñu def farlu gu mat ak ñor gu leen xasida yi ñor ba suñuy ñëw dañuy ñëwee kuréel national bu Touba Italie nga xam bu Touba Espagne nga xam ne kenn ku ci ne booy ñëw sa turu dëkk ngay représenté ñëw doo représenté li nga xam ne mooy jëmmi Espagne ji kon sëñ Mbàkke bisimilah. ngi leen di siyaare di siyaare bokki taalibe yi nga xam ne nii ñoom lañ bokkal jataay bi te ñu bàyyi ko ci euh, dëkk yu bari yu fasanti ko yoo xam ne ni bokku ci gox euh, commencé ci jëwriñ ji ñu dendeel mu bàyyi ko Belgique. ak Norvège ak euh, Allemagne ak France ñi ngi siyaare ñëpp bàyyiwun kenn ak suñu mbokkum jëru mi toog ak euh, ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Amérique lii nag euh, mbégte la mu rëy ci yaakaar naa murit yëpp ndax léggéey bi Seexul Xadim doon liggéey dafa mel ni ci lislaam suñu borom nangul na ko ko ba taalibe yi fi nii yaakaar naa ni cant gi lañ féetewoo ndax ba seexul xadim naan lil Moustapha nawaytu maay jaddidu sunnatuwal xaraw wa inni ahmadu dafa mel ni bi si mel nii daf cee bokkoon ndax euh, lislaam kenn ku nekk xam na ni nii di ci amal bis yoo xam ne nii day delloo nit ñi ci yàlla ah di leen delloowaat di dëgër seen pas-pas di leen fàttaliwaat liggéeyu seexul xadim bi jàpp naa ni bis bu gën a rëy bis boobu amut ci liggéey bi ñuy defal seexul xadim ba tax na yéen ñi nga xam ne yéen lañ fekk si muy suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fekk Italie te liggéey bii ñu doon def tey jii maam kenn ku nekk bàyyi ko ci gox yu fasanti ko ñu ñu bàyyi ko Espagne ànd ak uh, jëwrin yu bari ak kuréel bi nga xam ne noonu ko wax muy kuréel national bi te Serigne Souleymane Fall ci suñu jëwrin ànd kook ñun wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu liggéey bi bu baax baax a baax te di leen santit di ñaanit li nga xam ne nii moo ñu fi andi muy sàkku ngërëmul Serigne Touba yàlla ñu ko sëriñ bi defal di soññiwaat suñu boppit tey soññiwaat bépp mbooloo boo xam ne nii uh, dafay liggéey Seexul mu gën a takk laxasaayam gën a góor góorlu ci li nga xam ne ni moo nu boole ndax kenn ku nekk xam na ne nii jataay bi kenn sàkku ko ci ñun Serigne Touba rek moo dogal maanaam ñu bokk pas-pas dox ba dajee ci te pas-pas nag dafa am lu muy wane ci yoonu murid di ko wane ci lislaam ndax Seydina Omar kenn ku nekk xam na ne ni bokk na ci mu jëñoo ci lislaam waaye foo ne Aliyu ni Ababacar dañ ci teg Omar te Cheikh Ibra Fall kenn ku nekk xam na ni moom bokk na ci cheikh yi mujj ñëw Serigne Touba waaye foo ne Serigne Touba Cheikh Ibra nga ci teg kon pas-pas bu dëgër kenn ku nekk war na ci jàng ci ñooñu ci jëm yooyu maanaam sa pas-pas fan la la mën a yóbbu ci yoonu murid sa pas-pas fan la la mën a yóbbu ci yoonu yàlla te mu jaral lépp ndax bu njëkk lislaam dafa doon jaay euh, deret ñu ñoo xam ne dañu jël seen deret di ko jox seen alal te ñun loolu lépp Cheikhul Khadim laajuluñ ko lim ñu laajoo mooy rabbi asaabaka bil himma yitte ju rëy yitte ju rëy nag lii dara ko cee kon ñu bàyyi war xel bis bi ak liggéey bi nga xam ne ni moom lañu sëriñ bi jagleel ñu gën ci takkaat suñu laxasaay te gën a boole waat suñu bopp gën a laxasaayu waat te xam ne ni liggéey bi maanaam ñun dañ cee nekk ay jëwrin rek waaye sëriñ Tuubaa moo ko doxalal boppam amul kenn ci ñun koo xam ni yaay doxal liggéey bi Seexul Xadiim mooy doxal liggéey bi ak boppam kon yaa nañ ci daje ngërëmu sëriñ bi te ànd tawfeex bi baax na jërëjëf constat yi ci leeral yu am solo yooyu ak itam kàddu yu am solo yooyu nga xam ne moom la indi jëm ko ci liggéey mu tànk ginnaaw ah, kon li ñu def mooy jébal kàddu bi Cheikh ba Allemagne moom itam ñu leen dokkil baax ci seen bis ngeen génn ci jamono yu ñu passé yàggul dara moom it eh, kenn ku ne gis na xam na Allemagne ni mu tëddee waaye teewul fexe ngeen fa amal fa li nga xam ne moo di liggéey bi guddi bisu xasida boo xam wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sant sëriñ Touba Xadimul Mustafa ñu leen di nuyu te di leen siyaare te di leen balu ak te di leen balaax di leen ndokkeel te nuyoo bi ñu ci jiital suñu sang Cheikh Sidil Mokhtar te di ko ñaanal fan bu gudd ak wér ba li mu yéene liggéey Sëñ Tuubaa lépp mu liggéey ko ba mu mel lim ko bëggee te nu ànd ko ak moom ah, di teg ci nuyoo bi Serigne Sam Diop moom mi nga xam ni mooy suñu jëwriñ ñun ñëpp te sëriñ bi boole ñoog moom yàlla moo ñu jëkk a booleeg moom sëñ bi ñëw yeesalaat ko kon dañuy dollee sant yàlla bu baax a baax seex bi ci li nga laaj ñoo ngi ciy am mbégte bu baax a baax di ci am sant yàlla ku ñuy sant yàlla ndax mbir mi moom duñu ci gan duñ ci gan nag waaye nun lii rek lañ war moom lañ xam xamuñu leneen du du lii ndax li ko def mooy ñun doom yi ndigal lañ ndigal rek lañ mën a jëfe suñu bëggoon a def leneen lu ndigal it du sotti ndax doom yi ndigal lañ mel ni nii tudd nga Allemagne foofu la ñu bàyyi ko ñëw fii mu bokk ci dëkk yi gën a jafe waaye sëñ Tuubaa fenn jafewul ci moom ndax damay wax toujours ni bu ñu dund Italie bu ñu dund France bu ñu dund Sénégal bu ñu dund Allemagne nañ dund Sëriñ Touba moom la ñuy dund te fu ne dund ko fa. bu baax nag sëriñ Mourou Badar Diop daf doon wax ni Serigne Touba soo koy tudd soo fit war naa dëgër ndax ndax ba nga amee fitu tudd Serigne Touba dara da cee desatul ndax foo toll moom mu weesu la. dinaaw yaa am fitu tudd seex nee na seex bi nga tudd moom foo toll mu weesu la ndigal itam mel na ni ci lañu nekk ak xool liggéey bi lu ko waral ndigal na sëñ Abdou Lahad def noonu ndigal du màggat soo gisee ki la digal nekk ci soo ko gisut nekk ci yemul foofu àttan ci ku la ba loolu waxi sëñ Abdou mu mel ni ñun noo war a dolli di sant di war a dolli di sant ndax ku nekk ci lu baax ni la kaay ñu bokk bokk nekk ci kooku moom mënatoo jëf lu tax nga loo ko xam ne fay na ko waaye li ñu bokk di ko ñaan te di ko ñaan yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba mooy yàlla nañ Serigne Touba doon la defal ndam ci liggéey bi te yàlla bu ñu ci gis suñ bopp nañ ci gis sëriñ Touba kese. Ah, may sàkku itam ñun ñëpp nu bokk doon lay góorgóorlu bu baax a baax te xam ni kenn indiwu ci sa bopp Serigne Touba rekk la ndax xam-xamu kenn wala jomi kenn. wala man-manu kenn andi wula fii nga di fi liggéeyal sëñ Touba kon fu waay mën a nekk man faa yaatu ba mën faa liggéeyal sëñ Touba man faa jaamu yàlla jaamu gu ñu gu ñu mën a tudd lépp sëriñ Touba ku nangu ak ku bañ loolu sëriñ Touba la kon yàlla nanu ko yàlla fayal yàlla nanu ko yàlla fayal yàlla nanu ko yàlla fayal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu <laughs> jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad Leye bu Touba Allemagne ci euh, nuyoo bu am solo boobu ak itam kàddu yu am solo yi nga xam ne moom nga ciy toftal di ñaan rek suñ borom gën leen a dëgëral yéen itam ndax ni nga ko waxee Allemagne yombul waaye sëriñ bi fenn jafewul ci moom kon ñu ngi leen di ñaan rek di leen dolli ñaanal di leen dolli ñaanal sax la ñuy wax ca fas yéene koo ànd ak yéen fu ngeen gëstoo itam gisuñu seen ginnaaw euh, xam naa kon ñu daal di jébal kàddu gi sëriñ Abdoul Ahad Gueye bu Touba Angleterre moom it xam naa ren bokk ci euh, surprise yi nga xam ne moo feeñ ci bis bi ndax euh, première fois kuréelu Angleterre teew ci waaye teew ni moo yéeme ndax it ci euh, biñ leen di sànq jàng nañ fi njàng mu doy waar sax njàng mu yéeme ca itam loolu jafewaan a gis ci première participation bu bu bu benn kuréel jóge fenn ñëw maanaam doxee doxe ci wàllu woowu kon xam naa Cheikh Abdou ñu bàyyi la nga daal di nuyoo Euh, xam naa yëkkati kàddu yoo xam ne nii da nga yëkkati ci turu mboolem euh, délégation yi bi nga xam ne ñoo jógee fii Touba Angleterre. barke borom Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ci jiital Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke sunu borom gën ko fay yàggal lool te wér Serigne Jëmb Fall. suñ borom gën ko fee yàggal lool te ak njabootu Cheikhul Xaddim gépp ñii ma bokkal jataay bi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di la baalu àq bu baax te di la baalu àq di lot loolu ci kàddu yi nga xam ne si nii dañ ñoo maanaam taxawut temb rek ni faaw nga dem waaye lot nañ ci loolu ngir ngir di ko di ko jéem luñ lot nañ ci lool euh, kàddu yi ñuy yëkkati nag dañ koy yëkkati ci euh, Touba Angleterre gépp nga xam ni si ni euh, benn bopp lan ñu ngi ko yëkkati seen kàddu ñu nag ñun bokkal ñëw ci bis bi waaye ñu ñëwul foofu yëpp ñu ngi leen ci fasaaleel di leen yéenewaale ci bis ak mbooloo mi jullit fépp fu murit ne ak jullit rek ñu ngi lay ñu ngi lay ci yéenewaaleel di ci di ci sant bu baax am nañ ci tawféex loolu nag ndax euh, ñi ngi doog a ñëw ci bis yu mel nii fii ci itali waaye yàlla dogaloon na ñu njëkkoon a ñëw fee ca France euh, lu ñetti at yi weesu ci ginnaaw ñu fekk seen bis yooyu ñuy def ci Paris sëñ Xaarim Silla mii mooy jëwriñ ja waaye kon euh, am nañ ci tawféex gi li ko firndeel mooy ñu ñëwaat yokk jokkuwaat ci bisu itali bi nga xam ni koo gis xam ni bis bu bis bu bis bu màgg la loolu ñun kon xam nañ ni am nañ ci tawféex bu baax a baax a baax kon ñu ngi ciy ñu ngi sante foofu sëriñ bi ci euh, tàmbali googu ñu ko tàmbalee ci France ñu ñu dend ak seen xaarim si li nga xam ne foofu lañ tàmbalee seen liggéey boobu mu ñëw ba fi tey ñu dendaat nii kon euh, bu wér ni am nañ ci tawféexu sëriñ bi waaw am nañ ci tawféexu sëriñ bu baax a baax te ñi ngi ñaan mu yokk ñi ngi ñaan tamit euh, ngeen gën ñoo bàyyi xel xam ni bëgg nañ bëgg nañ ko lool ña fa nekk ñëpp lii seen yitte la waaye bu ngeen fi jógee rek ngeen xool nu ngeen ñuy gën a dimbalee rek ban mën a jokk ci liggéey bu baax a baax ndax xëy na amuñu si expérience ndax du ngeen dégg bi si ñu mel nii ay Angleterre rek yooyu waaw ñu ngi sàkku ci loolu daal jëwriñ ji mi ngi koy sàkk ci ci ci mbooloo mi fi ne ngeen xool nu ngeen ñu si dimbalee daal ba ba ba ba lëkkaloo ñu ci daal ñu ñu bokk ak liggéey bi ci fànn yëpp loolu ñu ngi koy sàkkuwaat bu baax a baax ci yéen gis nañ fi nag loo xam ni Euh, maanaam ay taw tawféex la gis nañ fi lu ñu yéem sax waaw lu ñu yéem ci ay bët waaye xam naa yéemul sëriñ bi nag waaye ñun dañoo yéem ñun waaw ñi ngi sàkku nag euh, ñu koy teewee saa su ne ñi ñi ñi ñi ñi mëggoon a ñëw te mënuñoo ñëw ñoom ñëpp teewee ko bu déwénee incha allah ba ñu dund ba ngeen ñuy teg ci yoon ban ko fay taxawee foofu ca Angleterre ñi ngi ñi koy sàkku baax ci barki xasida yi mu amee noonu waaye daal gis nañ fi loo xam ni euh, sëñ Kamal lu ñu yéem la mënuñu koo wax sax waaw am nañ taw tawféexu sëriñ bi rek ba mu boole ñu si nii euh, ñu nekk ci nii rek waaye mun mënuñu koo wax xamuñ sax nu ñu def ba wax ko waaye daal li ci gàttal li ñuy wax rek mooy am na am am nañ ci maanaam mbégte goo xam ni euh, xam na tàmbali gi rek waaye amul xamuñu fu maam yamukaay gi xanaa kay fas yéene ku dund nii rek at mu jot rek ñu koy teewee ak mbooloom jullit waaye daal liñ ci gis moom euh, maanaam kawe na ñun. waaw maanaam lu mel ni moom man wax dëgg yàlla maa ngi koy doog a maa ngi koy doog a maa ngi koy doog a gis waaw maa ngi koy doo a gis kon nag maa ngi ci euh, gën a gën a gën a tàllalaat loxo jëwriñ yi ci ndigalu suñu jëwriñ yi nekk foofu ngeen xool nu ngeen ñu jokkalee ci liggéey bi fii ban di ko ànd ak yéen ci fànn yëpp comme ni ma ko waxee ñuy dund ba di ko di ko organiser ñun tamit ci Angleterre ngeen di ñëw di ñu fa fekk si loolu daal ñu ngi koy ñu ngi koy ta ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy yalwaan ci yéen am laxasaay ci sëriñ bi gën a am dëgër ndax yi xew si àdduna bi ñu ñëpp ump ñu gis nañ ko waaye euh, ñu ñu gën a ñu gën a laxasaayu rek waaw euh, jëfe waxu sëñ ab laaj mel nay ëkk te bañ a mel na xob loolu daal xam naa laa doon tëje rek ñu gën a amuy laxasaay ci ci sëriñ bi dara bañ ñoo këf rek gën a gëm sëriñ bi rek gën a bëgg sëriñ bi rek waaw gën koo gëm rek waaw maa ngi maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp di waa baaluwaat àq ñëpp di jéggul ci kàddu yi nga xam ni luñ tële la lu ci jub rek ngeen xam ni noonu la waaye lu dëng sunu matadi la kon maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. Uh, bisimilah barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki julli yi mbokki taalibe yi xam naa ñu soo fi sëñ Moussa Kamal Jaxate uh, bàyyee sànq rek moom xam naa mbiri murit ma mënul ñàkk. Euh, loolu dafa bokk ci murid gi kenn mënu ko cee génnee loolu moo tax kon xam naa rek euh, ñu jéem ko cee wuut rek suñ kem kàttan comme fi mu daaneel rek xam naa bi ñu sante bu baax rek kilifa yi nga ñoom doon toogandoo ci bi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp di ay jëwriñ ci barab yi nga xam ne fi lañ jógee muy barab yi fasantikoo ni ko sëñ Moustapha limi rek daana jëriñu si jaar xam naa dañuy daal dugg rek sëñ mi nga xam ne moom moo jógee ci Touba France wax dëgg yàlla moom di jëwriñ foofu xam naa sëñ Xaadim gannaaw bu la nuyoo bu baax rek ziar la Euh, di la tatagal di la dalal bu baax a baax a baax ci barab bi nga xam ne ci sa barab la ndax ni ko sëñ laa daan waxee rek euh, ñi nga xam ne noonu daan faral di waxee gani màggal yi naan leen fa ngeen jógee la ngeen fa bàyyi rek moom ngeen di fekk si fii nga xam ne fi ngeen ñëw kon dafa mel ne yéen la maanaam bàyyi France loolu rek ngeen fekk si waat fii muy benn pas-pas bi te loolu mooy sëriñ bi ak xaside yi loolu rek moom mooy li nga xam ne moo leen fendi kon sëñ xaalim gannaaw mu la nuyoo baa ziar rek di leen euh, tatagal di leen masaw coono yi mbégte yi nga xam ne euh, moom la ñu boo ko dund ndax coono yi mbégte moom boo ko dund daanaka doo ko yëkk kon xam naa dana jox kàddu gi rek nga nuyoo su ko defee ñu doo ko dugg si laaj incha allah sëriñ xaadim bisimilah barki xaadimal musaa mbakke yaa xayra munsilin waxaabi xasbala wa xayra munsilin xabaabi basmala salli bi taslimin ala man faaqa fi xalqihi wa xulqihi ittifaaqa sidina muhammadin wal ali wa saxbihi fi lxaali wal maali noo ngi siyaare bu baax tey jéglu bu baax nag waaye ni ko sëñ Abdoulaye Sy mi waxee rek defuñu fi dara te amul dara luñ mën a wax ndax li matoon a wax yëpp wax ngeen ko ba daanaka dañuy sant rek te sant moom lu mu mën a waxee sant rek la mën a doon waaye xanaa li ma ciy sof rek mooy sëriñ Touba li mu bind daa bari mënuñoo jàng lépp waaye nag mën naa waat Serigne Touba ne bi si xasida yi am na fu ko Serigne Touba bind ci xasidaam yi donte xamu fu ne waaye ay moom daa yor ay lemmi tam waxtu jot rek mu mu lemmi dara teg ni mu jékkee-jékkee rek bis yëpp daal di adduna bépp maasendoor yi def ay bis yoo xam dañu koy jagleel xaside yi bu ñu lijjanti woon ba ci biir am na fu mu ko am na fu mu ko bind ci taalifa mi ndax moom li mat a wax yëpp wax na ko kon am na fu mu ko def sant gi ñuy sant Serigne Touba nag mooy lemmit yooyu biñ ci bokkee ñun ñëpp loolu rek loolu rek sunu texe la adduna ak alaaxira ndax moom mooy xool kenn ku ne li mu li ko neex mu ne diw mii dinaa ko boole ci sama limit yi bu waxtu wa jotee bi mu ñuy xool it xam nañu xam na ne matewuñ ko ñun ñëpp waaye moom la soob mu def ko am na ñu ko bëggoon te defalu leen ko loolu rek doy na sant Sëñ Tuubaa baax a baax a a baax leneen liñ ci tegit mooy xaside yi du tey ji bu doon dañuy woote beneen bis boo xamante ni nii dañoo am eh, kenn kuñ ko jagleel ci njabootu Sëñ Tuubaa gi du mën a ñëpp dina ñëw ndax man am naa sëriñ buñ na woon waa kër sëñ baara yi lañ ko jagleel kenn du ma fi njëkk mën naa bañ a concerné ñeneen mën naa concerné waa kër sëñ baara rek waaye li gën a yéeme ci sëñ Tuubaa mooy su bëggee ni nga ko waxee léegi nosu nos nosum jaam ñi xasida rek la ñuy tudd buñ tuddee xasida rek kenn ku ne li doon yeewu ci yow dana dana dana nelaw ci dana yeewu ndax kenn umpalewul ne xasida rek moo nu fi boole du benn jëm ju ñu fi boole sëñ Saam Jóob lu muy baax baax baax andiwuñ fi ñi mu àndal li ñuy baax baax andiwuñ fi xasida yi kese kese kese moonu yëkkati te bu fekkoon ni ñoom li ñuy doxee wuute na ak ni ko Serigne Touba bëggee beneen yoon du ñu fi gisaat. am nañ fulla goo xamante ne nii lépp lu ñuy woote ci Serigne Touba suñu fi ñëwee mu leer na lii dëppawul ak li Serigne Touba bëgg bu keroogaat bu àllëgee duñ ñëwaat ndax yebunu Serigne Touba te ñemewuñ ko ñeme koo xamante ne ne war na di ñuy dugg foo xamante ni dañuy wut lu neex doomu adama ba tax ñu di fi ñëw ak yi demee noonu déedéet demul noonu li ma ko ko wax léegi nii ne ko bis bi fi mu toll nii ñi nga àndal liggéey bi dan laa wóolu doy loola rek wóolu googu ñu la wóolu ba doy loola moo tax bis bi egsi fii mu egsi ndax buñ la jiitaloon ba pare te doyloo wuñ la du egsi fii mu egsi kon pëseefam ak ñi ñi nga xam ne ñoom la àndal bis bi ñoo tax mu egsi fii bis bi egsi te wax naa ko léegi ne ko gin naa ci daraja borom Tuubaa ne kanam rek lay mën a jëm te lii taw féexi nag mooy borom xol bu sell bu ne doo ci war a ànd ndax mooy suñu njariñ ñun ñëpp nii ñu dajaloo nii toog te ni ko sëñ Abdoulaye waxee nii te wax dëgg yàlla wax ju wax ju yéeme la wax maanaam bëgg lu baax rek moo ñu fendi te bu fekkee ni ku ku ku woote nga wuyu ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa am nañu rafet njort bu wér a wér nii bis li leen di jagal du ci ñun du ci kenn sëñ tubaa xol rek la am maanaam xamul nit mën naa sëñ tubaa tey bu duggoon fii mbërum ku ëppoon doole ci àdduna bi it ñu naan mbërum lambu la wala nangam ak nangam ak nangam am na koo xamante ne mënta dox mën nga tëdd ca lalam ëpp na làmb ji waaye pas-pas boobu mu am nga xam sëñ tubaa bu duggoon fii tey du xool ki fi gën a rafet ay yére ki xolam gën a sell rek fa la jëm te loolu rek moo nu fi boole ndax tey jii dañoo xamante ni nii kenn mënu koo xiyaas bu ñuy xool ci samay at Baye Sam Diop mii mat na ma maam te wax dëgg yàlla gisul at yi ma magee wala gisul fi féete gi ma féete bàyyi wala féete gi ma féete mag lim gis mooy danoo ànd liggéey sëñ Tuubaa bi bokk leen bëgg sëñ Tuubaa xamul mag xamul ndaw lim xam mooy ki nga xamante ne daa dox jëm li jëm si ko li sëñ Abdoulaye lay mii wax léegi nii sax ma dégg ma di ko wax nii murit yi sëñ Tuubaa lañ gëm balaa ngaa gënoon a xam ne sëñ Tuubaa la murit yi ñu woote leneen loo xam ne dëppoo ak sëriñ Tuubaa lu fi waaye mën a wax ak lu fi waaye mën a doon am nañ taw féex bu wér a wér ni ngërëm li gën a gaaw ngi mën koo làq Serigne Touba mooy takku téeréem yi te loolu moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi kon duñu duñu guddal ndax euh, wax ji dafa maa dafa xaw jaxasoo waaye li ñuy def mooy dañuy dañuy dañuy santaat borom Touba Mbacke bu baax a baax a baax a baax a baax ba mu ñu xiirtalee ci téeréem yi te ñu ànd ko ak ak ak ak waa waa waa waa di fas yéene takkaat suñu laxasaay bu wér sëñ Sam Diop du jëwriñu kuréelu itali déedéet day jëwriñu kuréelu xaside yëpp Europe te ñu ngi koy seereel ci écran bi ñu jàkkaarloo nangul nañ ko ko ci xol bu féex nangul nañ ko ci ak dal nangul nañ ko ci ak li ko sëñ Tuubaa tànn jiital ko ci suñu kanam bu fekkoon ni bëgg na tey bisu Paris boobu wala bisu itali boobu noonu ak bisu euh, Espagne ak euh, Allemagne ak fu mu mën a doon tey jii bu ne woon nañ ci doxalaat neneen wala am naa ci beneen xalaat dootuñu wax dañ koy déglu rek na ko noo ko bëggee rek noonu lañ koy defee kon du ñu guddal noo ngi jégg lu baax te tey tey tuubalaat ñëpp rek tey ñaan Serigne Touba dooleel noo dimbali ba nii mu nu boolee seytaane bi nga xamante ni moom la yàlla waxoon ne daf leen ko seen noonu mooy sunub noonu ñu xam ni seytaane moom li ko dese ci àdduna moom li ko dese mooy murid yi di dox ci xaside seytaane loolu rek ko dese loolu nag moom bis bu nu yàlla sax Serigne Touba dinañu suturaal ba loolu du mën a ne waaye yàlla nu Serigne Touba dimbali ba tënkal ñu seytaane ba lu waaye mën a wax ci biti ak lu mën a doon ñun xam nañ fi ñu jëm xam nañ liñ bëgg te liñ bëgg ci téere Serigne Touba lañ ko mën a amee kon ñoo ngi jégg bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ak sa jërëjëf Serigne Khadim kàddu yi wax dëgg yàlla macha allah matal na te it rafet na lool te wax dëgg yàlla jote la ne wax dëgg yàlla kàddu yi lu bëree bëri mënees na ko cee jànge wax dëgg yàlla dégg nañ ci ak booloo goo xam ne wax dëgg li mbokki di wax saa su nekk muy lu jafe woon lool waaye dafa mel ne sëriñ bi ci yi la ko awee ndax bu ñu xoolee ñi nga xam ñoo di plateau yëpp ay réew yu bokkul la ñu jógee waaye ni nga waxee ñoom ñëpp waxee ko dafay mel ne ñoom ñëpp sax ci genn kër lañu far jóge booy xool te li ko indi rek mooy li nga wax sànq ci xasida yi kon ànd boobu yi dañuy ñaan rek ci barke Serigne Touba bari xasida yi mu sax ba faw te ñu am ci ngërëmu Serigne bi xam naa ne kon dañuy jox seen blal léegi rek bu defee xam naa kon mu def kàdd yi mu jëm incha allah ak yeneen mbokk yi xam ñoo jotaay bi yëpp bu neex suñu subhaanahu wa ta'aala laat te xam ni dafa am discours bu sëñ Abdou Lahad mas a def te defe naa ni lii ci la bokk discours boobu sëñ Abdou Lahad ci nit rek la ko defoon def noonu nit bu ca nit jógee dara desu ca nit bu ca nit a jógee dara desu ca nit mën naa ëpple ay bokkam waaye mënut a ëppi bokkam nit mën naa gën ay bokkam waaye mënut a génn ay bokkam nit mën naa raw ay bokkam waaye bu taxawul nag leen aw doxinam du rafet am na fu mu waxee tamit ni lépp looy jëf te yàlla tax xoolal ni ko yàlla bëggee nga defe ko noonu ndax yàlla tax nga di ko def waaye lépp looy def te doomu aadama yi ñoo tax nga di ko def xo dee ci wax ak ñoom te di ci def ak ñoom ndax ñoo tax nga di ko def waaye bu pay jotee nag bu bu bu ko sédd suñu borom ndax di defaloo ko ko woon li nga doon def te nit ñi tax bul ci yaakaar payug suñu borom ndax nit ñee tax woon nga doon ko def yàlla taxul woon lu jëf ja rafet rafet lu jëf ja rëy rëy bu dikkee ci suñu borom day wax ni ah man kat taxu ma woon mu di ko jëf kon ña ko ña taxoon mu di ko jëf mooy doomu aadama yi ñoo ñaa ko war a fay te ñun li ñuy wut payug suñu borom rek la ñuy wut te di ko yaakaar te di ko bëgg waxtu wu nekk yàlla nu ko yàlla defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Abdou Lahad ci kàddu am solo yoo xam naa sëriñ Baara rek yow mi nga xam ne war yaa kenn nga ci kilifa yi nekk tamit jëwriñu Touba Norwaay xam naa sa kàddu yu mujj rek incha allah comme mel na jotaay bi xaw naa yàgg tey coono yi wax dëgg yàlla xaw naa dajaloo lool xam naa gannaaw bu ñu sante baax na dëgg yàlla ci teew nga xam ne teew ngeen ko fi muy wax dëgg yàlla loo xam ne ñun ñëpp suñu alal la comme ni ma sànq rek ndax liggéey bi liggéey suñu Tuubaa la te ñëpp ñoo ci bokk yam wàcc waay wax dëgg yàlla kon sëñ xam naa sa kàddu yu mujj rek incha allah bu neexee yàlla. waaw sëñ bi xam naa ni lépp matale na na mbokk yi li nu wax fii léegi daanaka mënuma si teg leneen waaye li si ëpp solo rek mooy ni nu bàyyi xel tuuti ni ñu ñëpp ñoo ngi nekk àll te bëgg liggéeyal Serigne Touba kon liggéey boobu tamit nanu ko teg si xel parce que tamit dëgg la àll jaa nga fa pastif jaa nga fa lépp a nga fa waaye nag àdduna fi ni muy doxee lépp si xel lay dox kon nanu gën a déggoo suñu biir gën a waxtaan suñu biir gën a yokkante ay xel parce que ñun ñi fanu nekk réew mu tuuti la xëy na yéen ñi nekk si réew yu mag yi am na lu ngeen nu sute si ay doxalin si ay xel ngeen xalal nu ko ñeneen tamit muy noonu bu ñu ko defee ñun suñu biir li nu bëgg am li nu bëgg jot loolu lu nu bëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu daan ko am parce que defe naa ne liggéeyal sëriñ Tuubaa bi tamit du ay toog rek jàng xasaay jàng alxuraan dëgg la jàng xasaay jàng baax na waaye xamale sëriñ Tuubaa si beneen anam ubbi bunt yi ñi xamul sëriñ Tuubaa xam sëriñ Tuubaa def naa foofu mooy mooy min ba kon loolu tamit si nii nu koy defee nii di def ay journée xasaayit di def ay exposition nu nuy di ko def si anglais si français si lakk yu nekk pour xamal ko ñeneen def naa foofu mooy wax ba kon nan si bàyyante xel Euh, di ñaan suñu borom bi rek mu gëndoo jàppale am na ko fi wax léegi ni sunu borom mën na noo musal seytaane waaye seytaane tamit nit la rek doomu aadama la euh, te tamit doomu aadama boobu ñun la ñun ñun ñooy doomu adama bi kon ñun lu mën a def rek mooy ni nu moytu polémique bi polémique bi mooy ni internet bi ak média bi nu bàyyi xel loolu du ko wax rek nu tëb tontu tontu yi amatul njariñ jaru ko xam nañu fa nu jëm nanu jubal fa nu jëm xam nañu ko nan fa jubal ku mën a bind ku mën a wax bu nu tontu jaru ko nanu xool fu nu jëm rek mooy ni ñun kat si xasaay yi lañ tënku ngir liggéeyal si Sëriñ Tuubaa am nañ si jëwriñ nanu bàyyi jëwriñ yi di wax di xalaat te ñun nu bañ kat ku wax nu tontu loolu nu moytu ko si barkat rasulillah jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Sëriñ sant bu baax tey di la xamal ne euh, li nga wax nii foofu itam fi lañ fas yéene tënku muy maanaam dox rek ca bañ a geesu ndax euh, Serigne Saliou Mbacke daana wax ne maanaam ki nga jiitu mooy xam sa sa tànk yu dëng kon nag maanaam loolu li ci am solo mooy dox ca bañ a ca ca ca ca ca ca geesu waaw dox ca bañ a geesu kon ba tey ni ñu ko waxee ci ci même présentation bi ni ñu ko waxee woon rek eh, Serigne Souleymane Fall eh, bu Hizbut Tarqiyyah Daaru Khoudoss moom it mi ngi fi moom it ndeysaan mu teew fi ci ñaari ci ci ci ci ci ci ñaari mën nañu ci ñaari ndombay tànk ni ko mën a waxee ndax kenn ku ne xam ne eh, mi ngi Espagne fa yëngu yëngu bu am solo moom itam ci wàllu xasida yi di moom it di fa yëngu-yëngu solo ci wàllu xasida yi moom itam bokk ci it ñi nga xam ne ñoo ñoo fi teewal ren yi Hizbut Tarqiyyah bu Daaru Xudoos ànd ci ak Serigne Mamadou Joxaane dafa xaw a jàpp rek waaye sax moom moom moom moom moom moo waroon ñu wax seen kàddu ginnaaw bi la ñu yebal Serigne Souleymane moom it mu yëkkati ay kàddu yu yu yu yu ñu gàtt rek jëmee ko ci seen teewaay ak itam jàpp yàgg guñ yàgg jàpp ci liggéey bi te itam ñu xam ne soppante bi lépp dara andiwu ko rek lu tur li sëñ bi wax euh, mahat mahabatiyal muxtaara sayidina xubbul maqaaniya wal ahlina wal walada ñun soppante gi am ci ci ci ci taalibeem yi tamit foofu rek la dugg kon sëriñ Souleymane ñu ñu daal lay bàyyi rek nga daal di nuyoo bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, ñoo ngi siyaare mbokk jullit yépp di siyaare mbokku taalibe yi eh, di ñaan Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér eh, ba liggéey bi nga xam ni moom la liggéeyal maamam ja mu àggale ko ci nam ko bëggee ci barkeb xaside yi te ñu ànd ko moom it ci barkeb xaside yi sëñ Kamal ñu ngi siyaare bu baax tey sant bu baax ci bis bi nga xam ni Ah, sunu borom dogal nañu fekke woon ko fekkewaat ko ñu ngi ñaan sunu borom ñu fekk ko at yu bëree bëri bëri te mu ànd ak taal ak wér ci barkeb xasida yi ah, comme noonu nga ko waxee rek dañ fee teew ah, ci turu xisbu tarqiya daaru xuddoos waaye nag dañ fee teew it ko Espagne ci turu waa nag tey jii damay wax ci turu mi nga xam ni danoo yebal délégation boo xam ni Euh, sëñ Mamadou Joxaane moo ko jiite dafa jàpp comme ni nga ko waxee waaye kon moo waroon toog fii euh, ñoo ngi santit xam naa suñu borom moo ko dogale nii rek waaye suñu yéene moo doon kuréel gi teew fi ñoom ñëpp di leen sant bu baax seen taxawaay bi ngeen ci def yëpp ak seen coono yi ngeen ci def euh, waaye ku ne xam na ni ay li leen téye rek dafa mbiru ay documents yoo xam ne dafa noppiwul woon waaye seen yéene moo doon tew fi ànd ko gi yéen ndax liggéey bii ngeen def ñun ak yéen ko bokk muy xasida yi kon euh, sunu yéene moo doon kuréel gépp teew fi waaye nag ñi fi nekk te nekk ci daar ji fas nañ ko yéene ànd ak yéen di ci ñaan sunu borom euh, day ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa diñ ciy sàkku lépp Sëriñ Tuubaa teg ko sunu loxo ci barkeb xasida yi loolu daal moo doon kàddu bi man nag xam naa wax ji daa xaw a kii waaye moom sant daal ak ñaan sunu borom euh, liggéey bi ñuy def ci xasida yi mu nangu ko loolu rek laay laay laay wax tey ñaan ñu fekk at yu bëree bëri te di leen masawu it ci coono yi ndax liggéey bi ku ko gis xam ni liggéey bu yaatu la boo xam ni sonn ngeen ci lool waaye ki ngeen koy defal jar ko te am na pay muy Serigne Touba yàlla na leen fay te boole ñun ñëpp di siyaare bu baax a baax nag jëwriñu daara xisbu tariqi daal xuddoos Serigne Mbàkke Cuun euh, di ko sant ak mbooleem daara ji ci seen taxawaay ci liggéey bii ak yebal gën ñu fa yebal te fas yéen fas yéen fas yéene nañ fee jëmmal kuréel goo xam ne ci turu daara ji lay jàng kon loolu di loo xam ne lu bees la ren ji te dañ ko fas yéene ànd ak yéen at mu jot ñu ngi leen di sant daal di leen gërëm di ñaan suñu borom liggéey bi suñu borom nangu ko dañu bokk ñun ñëpp ci barkeb xasida yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam jërëjëf Serigne Souleymane euh, ci kàddu yu am solo yooyu ni nga ko waxee euh, daara ji moom euh, ñun ñëpp dañuy jàpp ne su suñu daara la ndax it amu ci kenn ci ñiy jëmmal liggéey bi ak réew mu réew mu mën di jógee ak mu man di jógee ci ci ci monde bi ni ñu koy waxee ca amul lu muy jariñoo ci daara ji kon dafay mel ne daara ji moom xëy na da ngeen ñu faa nekkal rek waaye ëpp leen ñu fa ab cër te itam maanaam bëgg gi ngeen ci am rek am nañ ci gu ko raw yéen ji ngeen ci amit am nañ ci gu ko raw ànd ak yéen te taxawaay bi lu yàgg la toogul ba ren ba ba délégation bi jógee Sénégal ñu doo ko séq ak yéen waaye gis nañ ne kuréelu Daaru Xudus bi nga xam ne moo nekk fii ci jaspora bi daanaka mën nañ ne tey boo leen tasoon sax kenn ku ne ak matt la ci liggéey bi maanaam kenn ku ne membre la boo xam ne nii bu bu yor responsable bu rëy la sax ci biir liggéey bi kon loola lu yàgg lu yàgg suñu diggante ak yéen la xëy na seen seen seen seen seen yéene rëy seen yéene rëy lool ba ba kawe ba tax ñu ñu ñu ngeen dem ba gis ne ñu ne fii seey nañ ci seey goo xam ne nii sax maanaam ñoom seen bopp dañuy fàtte ne sax Daaru Xudoos lañ bokk ñun ñu nekk ak ñoom tamit dañuy dem sax ba dutu dutuñ leen gis foofa ndax ni ñu seeyee suñ ni ñu seeyee suñ biir seeyee ko ci biir liggéey bi ba tax na tey ren ñu waa ñu waajaloon beneen kuréel boo xam ne day jógee ba Sénégal ngir ngir jàpp ci liggéey bi kon ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay boobu gis nañ itam yitte ji ngeen ko jox waaye ba tey xam naa kon ci biir jotaay bi ñu leen di fàttali ne sëriñ Sam mi ngi fi moom i nga xam ne mooy jëruñu liggéey bi ni ko sëriñ Xaadim doon waxee sànq sëriñ Issa Goudia bi moom itam ni ñu leen ko woon ci ndorteel yi eh, mi ngi fi moom it jógee ba Amérique xam naa ni ñu def moom tamit jox ko kàddu gi moom it mu nuyoo joxe njàngatam ci bis bi kon sëriñ Issa ni ñu ko waxee mooy mbooleem mën nañ ne euh, maanaam àdduna bi eh, maanaam eh, ñi fi ndax euh, fii ñu toogoon tey Europe gépp ngi fi woon ni ki noonu Amérique ba Afrique kon eh, lépp mat na maanaam matuk sëñ bi daal maanaam gënati naa feeñ kon sëñ Issa ñu daal la jox kàddu gi ci foofu mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi leen di nuyu baax a baax a baax di leen ziyaare di leen sant baax a baax ci eh, liggéey bi nga xamante ne yéen a yéen a ngi koy def ñoo ngi ziyaare bu baax itam sëñ Sam Diop di dellu itam di siyaare eh, sama jëwriñ yi nga xamante ne eh, ah, baax na ñoo ngi ñoo ngi siyaare suñu jëwriñ yi nga xamante ne itam ñoo nekk eh, États-Unis ma di ci lim sëñ Mouhamadou njaay Touba New York di ci lim sëñ Mademba Diagne Touba Savana ñooñu rek suñu leen limee daanaka teewal nañ mbooloom mi yëpp Euh, di dellu itam di euh, ziare bu baax a baax a baax sëñ Sam Diop mi nga xamante ne mooy jëwriñu liggéey bi fii nii itam di delloo euh, njukkal itam suñu jëwriñ sëñ Mbacke Thion bi Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos kon ñu ngi siyaare mbokk taalibe yëpp di sant bu baax a baax a baax nag ci bis bi lenn rek laa ci bëgg a fësal muy def lu baax lu tax mu am solo mooy njëriñ li fa mu jëm mën ngeen koo bañ a xam ki koy jëf mën na bañ a xam njëriñu def lu baax fu mu jëm maam yow danga koy jëf rek toog fi nga toog lii moo tax suñu borom di wax ne ëllëg su ma leen feyee di ngeen rus ndax doo leen xam lii fu mu jógee waaye mën naa leen xamal ne seen bis bi ngeen di taxawal yi moo soññ waa États-Unis ba ñu taxawal ko te loolu yëgu leen ko kon foofu rek laay wax ne def lu baax lu am solo la rawatina bu sellee euh, bi ñuy tàmbali suñu bis 2009 jëmmi liggéey bi ngeen taxawal fii nii moo ñu soññ ñun ñu xool waxtaan Kër Sëñ ci New York mbokki taalibe yi jàng ba noppi daje waaye li ñuy def doyu ndax waxtu la walla ñaari waxtu gën ngaa bare ñu daal di xool ne ah war nañoo dajale def ni waa Italie ndax ay góor yàlla fa nekk ay jàmbaara fa nekk war war nañoo xool ci ñoom moo tax may wax ne def lu baax lu am solo la bañ ko waxtaanee ca at googu muy juillet ndax ci bisu Cheikh Ahmadou Bamba bi la woon New York décembre bi lañ ko taxawal muy diir bu gàtt ñu mel ni lu ci xaw a tiit suñ boroom fekk si ñu si suturaal ñu jaarale ko ci sëñ Alaaji Baara yal na ko suñu borom yokk leeram tas ci barkeem biñ ko waajalee ba taxaw ci ba yëgal ko ko mu bég ci lool yónni ñaar ci njabootam ñu taxaw ko ñu dem ba ci xaaj guddi gi xaaj ba lu mel ni waxtu wi rek mu daal di wooteel boppam daal di daal di ñu wax ay kàddu yéeme yoo xam ne duñ ko mës a fàtte ilaa yawmi diin waaw kon euh, damay delluwaat ci wax na rek def lu baax billaay jar naa sonn loo ci dégg loo ci daj fàtte ko ndax pay bi moo ëpp loolu fop cey li moom cey li mu daj rek loolu moom ñëpp xam nañ ko waa soññ gi nag mooy gën a góorgóorlu gën a jàppaat ci liggéey bi bu wér a wér te xam ne lu baax yombut kéemaan la daal waaye daal ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ñu suñu suñuy jëwriñ ngeen suñuy magu taalibe ngeen ci liggéey bi waaw te ñoo ngi sàkku ci bokki taalibe yëpp ñu ñu gën di jokkoo fu fu bis mën a am rek ni ko waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos defee nga xam ne day màndargaal euh, ak di jëmmal liggéey ñu koy def fu mu amee Amérique fu mu amee at fu mu mënti am ba ca Sénégal sax ñu ñëpp ni niñ gën di booloo gën di tënku te di ko def ni mu sellee nii nañ ko nañ ko gëna bàyyi xel lépp mat na ñun de bëgg nañ lool waaw ñu ngi leen di siyaare bu baax baax a baax di jégalu ci kàddu yi waaw jéggi nañ jëf. jërëjëf Serigne wax dëgg yàlla waa Amérique it ñoom it seen taxawaay rafet na lool moom it ñu ngi leen doon topp saa su ne lii rek mooy mooy liggéey bi kenn ku ne fi mu ne nii daanaka fa nga nekk sa moroom ngay yëg. ba tey suñu borom def ñu ñëpp ñu ñu dajawaat fi ci benn jotaay ci ni ko sëñ Xaadim waxee dara dajalewuñu lu dul lu dul xaside yi li mu ko waxee kenn ku ne li doon nelaw ci yow rek moo yow ñu jóg uti barab barab bi nag mooy tey boo xoolee ñi ñi bokk bëgg-bëgg rek ñoo fi daje maanaam ñi bokk bëgg bëgg-bëgg rek ñoo fi daje xam kon sëñ Xaadim li def dañ lay bàyyi rek nga nga nga résumél ñu li ñu jot a tënk xam naa bala bala bala bala ñoo jox kàddu gi Baye Sam kon mooy jëwrin ji xëy na moom su waxee ba pare rek maanaam li ñuy daal def mooy ñaanlu kon li ñuy def mooy delloo kàddu gi sëñ Xaadim njàngat mi incha allah. Paa Mbacké si Moussa Kamal <laughs> wax nga lu yéeme waaw njàngat mi de mooy li li li li sëñ bi tëjee rek mooy mooy def lu baax def lu baax moom daa war a jaral ku ne lu ne defe ko ci Sëriñ Tuubaa nag daa gën a baax jaare ko ci xasida yi dafa gën a gën a baax ndax li gën a gaaw ci Sëriñ Tuubaa wuynu mooy ñu woo ko ci xaside yi te eh, ni ko sëriñ si di waxee ak borom xam-xam yi rek ci li ñuy mën a tënk mooy nit ku ne xam na ne li ko naqari ci jëmmam ji rek seytaane ko teg te xamuñu nu ñuy def mucc ci sëriñ yi nga xamante ne nii ñoom ci ñoom lañ sukk jébbalu wallaahi lazim ñu ngi fii ñu nga Sénégal rarement la ñuy déggante ak ñoom bu ñu demee Sénégal ñaare dañuy at ba at la ñuy dem Sénégal wala ay 6 mois par 6 mois bu ñu demee gis leen ñaari fan ñetti fan. Euh, na nga xamante ni dëgg dëgg dëgg noonu la ñu war a dundee ñun taalibe noonu la ñu war a dundee ak suñu sëriñoo yi temps bi ñu ko pour ñu gis leen mën a dundee ak ñoom noonu ngir ñu mën ñu di ñu digal wala di ñu tere. waaye ndokk bi sëriñ Tuubaa bi ñu bi ñu dimbalee ba ni ko am na sama sëriñ bu baax bu ko xool xam naa loolu sax mooy tënk bi rek ne sëriñ yi ñett lañ lay jàngal ki lay ki ak ki lay yéege ak yi ni am na na koo xamante ni nii mën ne na mën naa boole ñetti yëpp mu ne yëpp mën nañ ko woowee mursid sëriñ bi ne xam na ni dinañ dem ba jëmmi jamono comme ni ma wax léegi nii rek takkook sunu sëriñ yooyu dana jafe ngir ñu mën a lii sëñ baa bëgg ci ñun sëriñ sëriñ yooyu def ko ci ñun dana jafe ndax takkoo gi ñuy takkoo ñoom daa daa manqué sëriñ bi ne coppet xas taqoo googu daan koy daan koy def ci xasida bi maanaam comme ni nga ko waxee ci nuuru daay wajaxal tawaali fiya misla murshidi wa sax saxi waxal bi arshidi loolu sëñ Basiru Mbàkke maa ngi koy siyaare bu baax moom ma ko jàngaloon nga xamante ne boo taqoo xasida yi rek li sëriñ boobu daan def ci yow xasida gi mën na koo def ci yow te du la digal du la tere rek moom yow da ngay xëy rek baax wala xëy am loo doon def loo xam mënatoo ko def tax doo xam lu tax wala loo xalaat ni la nga daan def bu njëkk boo ko xalaatee sax da ngay bëgg a wàccu loolu xasida rek moo ko mën te daje yi ñuy daje fii nii euh, xurufi Sëriñ Tuubaa yi ñu fi yëkkati muy jib di di di bir mënuñoo xam sax li muy def ci ñun ndax kenn ku ne dalay leer ni soo génnee fii di nga dolleekuwaat ci Sëriñ Tuubaa donte senn saala te loolu mat naa mat naa mat naa daw ba faatu ni ko sëñ bi waxee rek def lu baax maanaam kenn ku ne bu sa pas-pas yokkee Sëriñ Tuubaa tarafatal ay ni rek loolu bis boobu noonu da war a rendi ay ay giléem ngir sante ko borom Tuubaa Mbàkke ndax mbaax moom mu ngi ci kilo gën a bëgg Sëriñ Tuubaa ki la gën a gëm Sëriñ Tuubaa Mbàkke ki la gën a wóolu Sëriñ Tuubaa Mbàkke moo la gën ci lépp te loolu li kay maye mooy xaside Sëriñ Tuubaa Mbàkke yi li ni li nga xamante ne nag mooy mooy mbir mi mooy nu fexe ba saa su ne ndax loolu moom dañ ko mooy mooy liggéey bi sax dajee mbooloo mi baax na lool ñu ñu ñu berndeel leen baax na lool waaye am na loo xamante ne moom lañu war a gën a jeex suñu doole mooy fexe ba defe ko ni ko Sëñ Tuubaa bëggee loolu moom saa su ne moo war a nekk liggéey bi ëpp doole ci biir liggéey yi mooy fexe ba kenn du am naat sikki sàkkani lii moom Sëñ Tuubaa nangu na ko te loolu foofu la liggéey bi nekk ndax ni ko sëñ bi waxee léegi rek euh, seytaane ab joomu doomu aadama la buy dugg ci biir nit ñi di di di jaxase lu bare bare bare bare bare ba fi nga xamante nii mooy fi détails yi ñuy gën a oyofal moom foofu foofu mooy gën ay doon ay yitteem loolu nag mooy fexe ba bis bi nu du ko gën a sellal ci ci ci ci gën gaa doyeeg sell te te dajey murit ji loolu moom daanaka appel bu solennel la boo xamante ne ñëpp a ci bokk yam mooy jàngat gi ñu ci am tey jii boo demoon boo demoon Rome Vatican rek boo fa demoon su pape bi taxawee ci fenêtre boobu di wax lu toll ci ay 3 millions de personnes dinañ taxaw mais doo dégg ku noyyee loolu moom ñëpp jàngat nañ ko boo ko seetaanee télé rek paa bu taxawee ci fenêtre bi di wax kenn dootul noyyee te la muy wax xaw ma ndax am na njëriñ xaw ma amul njëriñ sama yoon nekku ci waaye lu waaye mën a wax ak fu lu mu baax baax baax wax xasida Sëñ Tuubaa yu ëpp doole téeméeri junni yoon loolu nag Sëñ Tuubaa mën na ko du lu ñuy wax nit ñi ñu gën a waaye Sëñ Tuubaa bu ko neexoon tey ñëpp noppi di ko di déglu xasida yi kon moom la ñuy ñaanaat rek bu ñu dajee tee ci ci bërëb yoo xamante ne ni xasidaa bi lañ fi jàng mu kattanal ñu dimbalu ñu dugg ji suñu xole ba dootuñu tal wax si wala si ñuy déglu xasidaa bi rek. loolu moom noo ngi koy ñaan sëñ Tuubaa Mbàkke mi nga xam lépp moo ko mën a def te lu waaye wax dégg na ko yàlla na ñu dimbali ba lii nga xamante ne moom moo ko neex mu am ndax du jàmbaaru kenn bu ñu dajee tee rek mu dimbali nu ba képp koo xam ne am nga pas-pas su jóg di ñëw rek da lay leer naan bis bi moom ci laay làqe ngërëmal sëriñ Tuubaa Mbàkke ba moom bu nga xamante ni da koy yombal ci ñun ba bu ñu duggatee kenn dootul tax dara dul jàng xasida durus yëkkati teewlu ba ñu ñaan jotaay bu ñu yëkkati ko kenn ku ne la am ci sëñ Tuubaa Mbàkke ñu gën koo sëñ Tuubaa gën koo fulaat teew loolu moom lu ñuy ñaan borom Tuubaa la mu defal ñu ko leneen li ñuy tëjee nag sëñ bi mooy di ñaan kii fit nekk jotaayu sëriñ Tuubaa bii liggéey bii muy liggéeyal sëriñ Tuubaa sëñ aar ko ba mu mucc ceeg jàmm ba ni ko sëñ bi waxee léegi rek ci jotaay wax yi bari yi xew ci àdduna bi ak yi demee noonu rek sëñ Tuubaa mi nga xamante ni moom la neex mu teg ko fi yàlla na ko dëpp kàttan ba lépp lim naa lim naalal borom Tuubaa Mbàkke lépp mu defee ko na mu ko bëggee te xaside yi nga xamante ni sëriñ Tuubaa bëgg ñu di ko jàng ndax moom moo leen bu ngeen xamoon sama xaside yi ni mu demee man ni ngeen ma ko fonkal baax ndax daa mel damay dagg sama yaram di leen ko jox loolu wax ju doy waar la loolu wax ju doy waar la de kon yàlla na sëriñ Tuubaa dimbali ba ñu xam li nu am lu mu doon ndax nit bëgg na ko lool xasida jàng ko ñun jomb nañu ñun taalibe yi njabootu sëriñ gi rek ñoo yeyoo jàng téeréem yi bu nu ko yombalalee nag ba ba ba ñu jot ba tawféex gañ ciy am ak cafka gi ñuy ñam gi ñuy gi ñuy am ci neexitu borom Tuubaa Mbàkke ñu di ko yëg ci téeréem kon war noo xam liñ am lu mu doon loolu kenn ku ne nit ñi amatuñu yi ñuy wax ci àdduna bi sëñ bi ak sëñ bi xol bu fees dell ci sëñ Tuubaa Mbàkke sëñ waratoo tal dara yow li nga war a tal mooy ci mbégte rek nga war a dund bara tere talati dara dara dara lu gën di bëgg borom Tuubaa Mbàkke te gën a bëgg borom Tuubaa Mbàkke nag mooy taxaw téere sëñ Tuubaa yi yàlla na nu sëriñ Tuubaa dimbali te kattanal ñu ba lépp li nga xamante ni bëgg nañ ko am ci ngërëmal sëriñ Tuubaa mu yombalal ñu ko baax a baax a baax a baax ñoo ngi jégalu baax li ma waxoon sànq rek dama dama tasaaroo ba xamul may yàlla na suñu tubaab dimbali baax jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Khadim. Euh, Tarkala macha allah loolu amul lenn luñ si teg xam naa nañuy def rek mooy comme Baye Sam Euh, yaa ngi doon teewee jotaay bi lépp dara umpalu ci gis nga ni mu demee euh, maanaam mbooleem délégation yi nga xam ne ñi ngi jógee ci li wër àddina bi lañ mën a wax ndax euh, niñ ko waxee continent yëpp ñu ngi fi ñoom lañ seqaloon jotaay bi kenn ku ne xam liggéey bu am bi nga xam ne moom lañ seq te niñ ko waxee ñoom ñëpp kenn ku ci ne fi mu ne nii jàpp nga ne li ngay yokkoo ci sa morom nga koy jëlee ji fi ne nii eh, kenn ku ne da ngaa daw wuti sa morom su boobaa daje bi day yomb ndax kenn ku ne da ngaa jàpp ne fi mu ne nii li lay li doo ko jëlee ci fi mu ne nii bu taxawee tey ah, waa Italie France ndax nangam waa France ne man de la ma gis Amérique na ma leen gisee waa Amérique ne man de Norvège gis naa seen bis ba na muy taxawee kon dèjà sëriñ bi la wër waaw kon yàlla nañ dajee ci sëriñ bi yàlla nañ dajee ci sëriñ bi ñun ñëpp kon Baye Sam li ñuy def mooy bàyyi la kàddu gi nga daal xam naa Euh, mujjeelu ñu daal di jotaay bi rek ci ay seede ci mboole mbokk yi nga xam ne tew nañu fi ak nii ñu fi teewee kenn ku ne nga xam ne bi ngay ñëw da nga àndaale sa maanaam sa lépp àndaale sa jot àndaale sa doole ñëw ba pare ñëw seeyaat ci biir liggéey bi nga xam ne nangu ñoo jàppe sax seen bopp ay gan waaye dañuy ñëw far dàq laa sax def maanaam li la fekkee muy muy muy muy lu am solo kon sëñ bi bisimilah. bisimilah. bisimilah rahmaani rahim barkama borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julliti mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di jël ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Sidi Mokhtar di ñaan sunu borom yàggal ko fi di wéral ko ak njabootu maam borom Tuubaa gépp ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko santit ci bis yi nga xam ni moo ñu yeesalal ndigal li ginnaaw bi ñu ko amee ci sëriñ Saliou Mbacke yàlla sunu borom yokk ay leeram am ko ci sëriñ Alaaji Baara ñu suñu borom yàlla na ko yokk ay maqaama ci fa mu nekk moom mu ñëw yeesalaatal na ko waaye ci yeesal gi mu am seere mu ñu yebalal doomi boppam ngir mu ñëw teewe si bis bi jiite ko muy sëriñ Cheikh Baara bu ñëwee itam fekk fi ay mbokkam mbàkke mbàkke yépp seexi sëriñ Tuubaa yëpp ñu ànd kook ñun jiite ci kon dañuy sant sunu boroom ci loolu ba noppi yu ko nag cant cant goo xam ne nag lott nañ ci tudd ko ndax mbokk taalibe yi nga xam ne nga jóge ci ni ko mbokk waxee rek sànq rek àddina bi yëpp ñu daje fi te li ci gën a yéeme mooy foo ca dem jëwriñ ji daa ànd ak délégation bu yaatu ñëw teew si ndax jëwriñ yi mën nañoo yeble dana doy sëkk wala ñoo jóg nag ànd ak ñañ war a àndal ñëpp ñëw ci bis bi ñëw gi ñëw itam dikkuñu rek ngir seen seen jëmmi bopp xol lañ jiital seen xol lañ jiital ba noppi ndax bi ñu daan ñëw rek seen xol moo njëkk a ñëw bu wër la ñuy def lépp ba noppi ak seen xel ndax damay wax ni xel fi nga toog yow di waxtaan mën na fee wër àddina moom dellu si te fekk yaa ngi toog fi nga toog kon seen xel lañ jiital soog a jël seen jëmm nag ñëw fekk ñëw te ba ñëwee seen jëmm it jëmmuñu seen jëmmi bopp waaye dañoo seet la ci seen i ji ñu yëkkati ko def ko ci bis bi ba ñëwee tamit tooguñu rek benn barab dañoo seet ñu xam ni ñi fi nekk ak li fi ne jëf moo ko fi indi ñu jëf dolli ci taxaw nag taxawaayu laxasaayu ànd ak ñun di saytu sax waxuma la gan ñi waaye di sant saytu sax dëkk yi fi ne kon loolu ak cantam ñun lot nañ ci tudd ko waaye nag sëriñ mi nga xam ni moom moo waral lépp moom gis na lépp xam na lépp dara ump dara jëru koo leeral xam na lépp kon sant nañ ci suñu borom bu baax sant leen ci ndax bu sunu borom dogaloon ñu woote bis bii te du fi gis kenn ku dul noonu kon danay wax ne kat wala ñeneen mën a wax ne kat ñoom dañoo ñàkk pexe dong moo tax ñu teew fa waaye bu jagan seen yeneen mbokk yi dañ fa dikk kon nag rafet nañ njort bu baax ni Sëriñ Tuubaa mi ngi ci biir gëm nañ ko sax laay wax am nañ ci yet yàqin ju wér ni mi ngi fi ndax fépp fu ñu koy liggéeyalee te dara ci àddina nekku fa dara ci pookare nekku fi nañ wóor ne ma ngi ci suñu biir donte gisuñu ko moom mi ngi ñuy gis te it wóor na ma ne am na xol yoo xam ne ñu ngi ne jàkk ci moom kon loolu dañuy sant suñu borom wax alhamdulilahi rabil alamin ginnaaw loolu nag sëñ mu Moustapha eh, wax ci tey dina ma jafe lool ndax nit kii bu sax xol xasee sedd doy na sëkk ci loo waroon a wax wala loo waroon def te nit ki boo ko nee jàkk bu bëggee xam nga bu nekkee ci leneen xam nga te fii koo ni jàkk gis nga ne wóor na ne xolam xelam ak jëmmam léppam dafa leer nañ ngir jëmmi sëñ Tuba ak jëmmi li ñu fi boole li ci boole itam eh, yaakaar naa ne weesuwut xasida sëñ Tuba yi ko waxe te la ci jiitu nag mooy alxuraanul karim ndax ci la lépp ba woo te mooy suñu tàmbalib liggéey kon bu ñu fa xasida yi boole te xasida yi ne fi jóguñu fi te du duñu fi jógee kon dañuy xam ne lii nu ànd duñu tàqalikoo te du du mus tàggaloo tàggaloo ndax li nu boole du fi jóg muy xasida Sëriñ Tuubaa yi kon nag bis bi rëy na rëy goo xam ni yéen a ko dolli daraja yéen a ko dolli ab taar yéen a ñu dolli it sutura roy nañ ci yéen it lu tax ñu mën a dox ba si fii ndax bu kenn jàpp ne bis ba ëpp mbooloo rek moo gën a rëy ci bis yi déedéet bis ba gën a dëppoo ak ndigalu Sëriñ moo gën a rëy ci bis yi te gis nañ ko ci barab yi ñu mës a dem mu ne dem nañ fi Norvège dem nañ fi France dem nañ fi Allemagne dem nañ fi Espagne am na nag barab yu ñu dese waaye lu jot yomb te barab yooyu benn bu ne gis nañ ña fa ne ci mbooloo am na ci barab yoo xam ne mbooloo mu néew moo fa nekk ci saayir waaye mbooloo mu yaatu la ci baatin ndax baatin bu mooy Pastef ak fas yéenee jëf ngir yàlla xooluñu ci kenn kon barab bu ci mel ni Norvège nga xam ni la fa ne ñu néew lañu ci saayir te jëf dañuy jëf di jëfi mbooloo kon yaakaar na ne am na lu ñu royee ci ñoom France dem nañ fa ay yoon gis nañu nañuy doxale nga xam ne mën nga faa dem ba ñibbisi te doo gis soxna kon loolu tamit lu mat a roy la ndax àddina it loolu rek moo fi nekk li mata roy nga roy ko li mat a romb nga bañ sax di ko jege bay romb Espagne dem nañ fa gis nañ la fa nekk lépp kon daal liggéey bi liggéey sëriñ Touba ñun dongoy Serigne Touba la sëriñ Tuubaa lam lam lam moom nag liggéey ko ci loxol boppam ak sell ga mu sel ak barab yam ko doon defee ak jafe-jafe yam fa nekke woon téewul lépp mu mu yoon ko ba tey lii am ñun dey bu nu goree lépp lu sëriñ Tuubaa bëggan war nañ caa jéem sunu lu nu man teg sunu bakkan ngir mën a am loola ngir lëm bëggan ñu mën koo def te ku ne xam ne lu baax kenn mësul gis ni lu baax a nga ne waaye dafa naaw rek tegu fa ak yomb indiwu ko fa mu nekk lu jafe moo ko yóbbu fa mu ne kon bu nu bëggee topp tànk sëriñ Tuubaa lii mu am nu am ci ndax moo waxoon ni saaba yi ñooy seen baay ci diine saaba yi ku ne dégg na lañ dajoon boo ko gisul tamit te mën ngaa waat ni lii ñu la nettali mooy li am kon liggéey sëriñ Tuubaa war nañoo jaral suñuy bakkan jaral na sunu alal yëpp jaral na sunu jot gépp ñu def ko ci ngir dabu bànneexub Serigne tubaa ngir dabu bëgg-bëggub Serigne Touba te lii ne wax ne yépp dañ koy dañuy liggéey Serigne Touba dëgg la gu waaye nag noo koy jëriñoo ndax lii lu dara lu dul waajal yow xiyaam rek la. àddina taxul ñuy def ginnaaw àddina taxul ñuy def nag li nga tax li ngay def àllaaxira tax ngay def. kon wàccaayu àllaaxira ca nga ne ci àddina di ci jéem ndax sa dund gi li muy gàtt gàtt ci nga war a am sutura sa àddina war cee am loo tedde àllaaxira ci yërmande sunu borom kon nag képp li ngay jëf nga xam ni wër na ëllëg la jëm war nga caa am pasteef te sellal ko te bañ a tàyyee bañ a sonn te xam ne lépp sa njëriñ la kon daal eh, liggéey bi dañuy xam ne nii ñu ànd ñëw ci barab bii noonu la war di ànd dem ci barab yëpp waaye waruñoo yem foofu war noo dem ba bisub xasida àddina bi yëpp màggal ko benn bis ñu xam ne tey jii lii mooy bisub àddina bi yëpp ci xasida ndax xam nañu àddina bi yëpp ñu ngi koy màggal wuute gi rek mooy ñi dañ ko def tey ñi def ko suba la war a loola it mooy wuute gox yi seeni jamono moo waral yooyu di mën a am waaye xol yi mu lënkaloo na ba noppi la des itam mooy ku ne xam na ni xasida war naa am ay kër yu bari sunu borom dogal na am na kër gu nekk Touba goo xam ni sëriñ Xabaan Mbàkke moom sëriñ Fàllu moo ñu ko joxoon te ba mu ñu koy jox musul ñëw ci bis bi dañu koo def suñu borom dogal na wet yii lañ ko doon defee muy Nawara 2008 bañ ko defaree bañ ko defee ba noppi am mbokk mu mu dem mu teg kaset mu koy seetaan ni lii fu mu xewee ñu ne ko fii ci itali mu ne jox naa leen ñeenti pàkk ci ndindi ngir ngeen def ko këru xasida kon kooka soññ nañu te surtout Sëriñ Fàllu la surtout maam Cheikh Ibra kon soññ nañu barab ba ma nga fa miire nañ ko ba mu yegg ubbi nañ fa daay alxuraan ñaari at lu man ñaari téeméeri ndongo ñu nga fa di jàng ay alluwee sax ñoo leen koy wutal ña fa nekk di saytu njàngum tuut tànk yi lañuy ñuy yóbbu seen kër ñun ñii la war noo koy def dama waaye damay wax ni Italie gii la gise woon loola waaye kër gi Italie moomu ko taalibe yëpp ko bokk murit yëpp a ko bokk kon bu gisee ma ci waxaale loolu ginnaaw jëwriñ yëpp dañu fee nekk te kër gi ñun yëpp ñu bokk ko at mu ne danañ dem siyaare gi sëñ Sidi Maxtaar dem fa def fa ngontum xasida ñu ngi leen ko yëgal dina ko fàttali te xam ni kër ga lañ ca nisër mooy ni ko sëñ bi waxee woon kërug xasida mu waxan ca biir yi waxam du ma leen digal nu ngeen koy def waaye daal da ngeen koy def ci plan te diggante asamaan ak suuf sore na kon la mu wax leer na wax ju wér la wet gu ne juróom fukki mètre la kon nag dañuy xam ne la fa war lépp ñun la war ay waxtaan dana am nag yoo xam dinañ xool nuñ cee defe lañ mën a def kon ñu ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi ginnaaw bi ñu santee bu baax a baax cant koo xam ne mënuñu ko tudd cant gii may sant nag ñu ngi koy sant ci turu mboolem Italie gépp ak mboolem jëwri ñu jóge ci yeneen barab yëpp. ndax benn liggéey la benn xol la yenn jëmbu ñoo koy def kon gan nekku fi. li fi ne mooy kay barab daa woote yeneen barab bi ñëw wuy si ko waaye ñoo ci yem kon nag sëriñ bi eh, ñu ngi gàttal foofu bu fekkee amul loolu yeneen loo ñuy sant rek ñun ñu ngi sant suñu borom bu baax di ñaan suñu borom yàggal leen fi wéral leen di ñaan suñu borom mi dara tëwul mu bàyyi ñu ak sëriñ Touba bàyyi ñu ak suñuy xel may ñu kàttan gu nu mën a jëfale Sëriñ Tuubaa nam ko bëggee may ñu doole joo xam ni dañ ko defal nam bëgg ndax liggéey Sëriñ Tuubaa yi lépp la laaj laaj na doole laaj na xam-xam laaj na xalaat laaj na alal yëpp lan soxla yàlla na ko Sëriñ Tuubaa defal te xéer na ci boppam nag ba duñu ko moy ci benn yoon lépp lu nu amati naam na yem ci Sëriñ Tuubaa lu am nan am Sëriñ Tuubaa lu nu ñàkkit nan am Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Sam kàddu yi moom matale na sëkk amatul lenn luñ siy teg xanaa di la ñaanal rek suñu borom kàttanal la dëgëral la te musal la ci bépp pakk ba yow itam fi nga yéene àggale liggéey bi nga amee ci lu kawe ci ànd koog mboolem ñi nga xam ne ñoom nga ko àndal euh, comme ni nga ko waxee rek du du ñu ko àndal ci Italie waaye ñu ko àndal ci monde bi yëpp la ñuy wax ndax fii dañuy jàpp ne kenn ku nekk rek gëm na ne maanaam euh, ci sa ginnaaw la topp te it yow gëm nga ne jàpp nga ne kenn ku ne jëwriñ la ca fa mu nekk teewal fa mbooloo mi kon lool loolu rek doy doy sant ni ko sëñ Xaadim waxee sànq ni ko sëñ Isaa waxee ni ko ni ko mbooloo mi yëpp seeree kon ñu ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp di jéggul tamit ci guddaayu jotaay bi waaye dafa doon mbir moo xam ne nii xëy na euh, da doon gën a jàppandi si ñu doxale ko nii ndax suñu borom def na ñëpp ñëpp teew nañ fi kon loolu ak jàppandal la ci itam lu lu luy gën a nos liggéey bi la rek ñi ngi ñi ngi sant bu baax mbooleem eh, délégation yi nga xam ne teew nañ fi ak ci taxawaay bu am solo bi ak jàpp bi nga xam ne moom lañu jàpp ci liggéey def ko seen yëfi bopp nag ca mi seen yëfi bopp nag boole ci ñu waaye nag ko xamee sant nañ bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf ci taxawaay bi sant nañ leen bu baax a baax wax li ñuy wax saf li ñuy wax saf saf lu saf إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مرتضى